promoteurs yi nag laay gën a wax tekkiwuñu dara. promoteur yi tekkiwuñu dara moo tax promoteur yi man bu ma tardé ci làmb promoteur yi ñoo ma tardel lay wax ni barke Serigne Touba Mbacke ay ñoom Gaston mais ñoo ñoo ndax galaa yi ñu doon tëgg dama déclenché la de guerre ñuy jël ay samba booy ko dugal ci galaa bi di wax ñuy propriété di ma jéema tuuti barke alxuraan kër ñoom ñoo war a njëkk a mu amatuñu ci làmb dara paa yooyu yëpp nañ jóge ci làmb ji waaw maa ko wax du amul lu ma ciy nëbb. ñoom ñoo yor waaw yoruñu benn làmb ay billet la ñu yor di ko jox nit ñi dañ de âge boo toll dafa am âge boo xam da ngay dem noppaliku ji nga jaamu ji yàlla. am da nga jaamu ji yàlla làmb promo bu pour seen directeur Alioune Sarr retraité promoteur yu mag yi war nañu retraité. ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci làmb mooy promoteur ñu ñuy yu mag yi ñoom ay mag lañu war nañu retraité ji soixante et quelque boo xamee da ngay dem nopp def fay njaboot sa sët dem ba takk jabar. yooyu danga war a dem retraité ji ci làmb mais ñun ñi ñoom ñoo ñu yàqal suñu carrière ndax du di jël ay mbër ay comme ay Max Mbargane mbër la danaan bëre mais Max Mbargane moom xamoon na ni man ba ma ciy tool waroon naa bokk ci galaa bi. am barke alxuraanu kërim. mais est xam nañ ni Batika amul xorom saful mënul bëree bu ñëwee du neex moo tax tëggaluñ la dem xooli ñeneen. dëgg booba xam nañu ku bëree la dëggee deux am daan Pape Sine syndicat daan Laasana xam nga ne waroon ma doole ci galaa bi. Mm. ñoom ñooy tax ba ñoom ñoo ma découragé ci làmb da dem ba xam ne day nekk ay par parloo xam nga rek mi ngi noonu après bu CNG defee ñu naan CNG day am ay clan ñoom ñoo fi ëppi clan ñoom ñoo fi ëppi clan dañu war a bàyyi làmb ji retraité Aziz Ndiaye ñëpp rafet du mu def bàyyi na làmb ñëpp leer nañ ko ci moom te xale bu ndaw la jublu ci siraatul mustaqim am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllay buur boo wéetee gore boo wéetee ko gore bëgg buur baax na waaye buur bëgg laa ko gën dama bëgg ñu xam lu ñu leen wax bu ba man charia ma fi àtte waaw mi ngi noonu CNG na retraité ñoom nanguwuñu retraité am bu ñu retraité ci tubaab l'islam mooy ñëw dañuy retraité foofu force waaw sa kër jàkka ja sa kër jàkka ja ñoom loolu la ñu war a def seen kër jàkka ja bàyyi nag promoteur yu ndaw yu fi ñëw ñoom bëgg nañu billet sax mais comme di jox nit ñi billet ay ñu tuuti ji ñoom ñoom dañ lay bloqué ci billet yi mais ba tey l'islam ay xale la ñu ba baax na mais nañu mag ñi nañu abale promoteur bu tuuti mooy calme na waa bëgg muy leer ndaw ñi booy vingt cinq ans trente ans xam nga bëri na fi xam nga boo tuddee fi mi ngi noonu ñooñu sax ay biir lañ lay kii mais ba tey xale lañu te defaguñu seen doom waaw mën na mais ñi nga xam dañu ba nekk mag muy ménager yu mag yi muy promoteur yu mag yëpp way waay wàllaay àllam nañ abale di gërëm nag moo Modou Niang sama làmb yëpp moom moo ko tëgg am di ko rafetlu di ko ñaan moo xam lu mu bëgg yàlla na ko suñu borom def mais ñi nga xam ne promoteur yi daal âgé nañu soixante jëm kaw am de ñoom CNG bu bees bi dafa war a def loolu ñoom ñu retraité ménager yu mag ñuy dàq leen jël ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay Jules Balde ay moromam indiwaat leen ci biir am de ay ñoom saa yaraax yi nga daan dégg bu ñu tukki ñu ñëw defaraat CNG dugg ci biir ñun ñax da nga mais yow CNG na retraité te yow nangu woo retraité te yow yaa njëkk CNG foofu ah mais gis nga loolu rafetul gis nga jiili gis nga du ñu xoolaatee nañu waxante dëgg Sénégal non dëgg nañu waxante dëgg lu ñu war bëri na mais Alioune Sarr ñoom ñoom ak Alioune Sarr mais na dem te ñoom du dem ah mais vraiment gis nga Sénégal dëgg amu fi da ngay gis li Sénégal dëgg amu fi bi loolu rafetul man damay bëgg charia ñëpp di ko dund ñëpp di ko dund am de tey ñun dañ dem ba nga xamante ne ñun dañuy jógee ci làmb ji ñoom ñoom franc ñëw am de ñoom Tapha Mbeur booy yu yi ñëw ñoom pam dooy rak ñoom dañuy dem ba dañuy jógee ci làmb ji man def na fii ak tuuti xalaatuma ñëwati làmb am de damay jaamu yàlla sama kër jàkk ji mais munoo dem ba am presque di am soixante-dix ans jëm kaw boo ko amul jegee nga ko ne ci làmb yooyu rafetul quoi loolu rafetul